subhaanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna maa yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli xaal aïsaana almushahidin walmutaabiin min kulli makan nuxayikum bi taxiyati alislaam alaa wahiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naqul lakum ahlan wa sahlan wa marhaban يتجدد بنا اللقاء اليوم في حلقتنا الثالثة مع برنامج مع برنامجنا الرمضاني أحكام الصيام mbokki jullit yi mbokki Sénégal yéen seetaan ci Daara Koki TV ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen sargal <clears throat> di leen dalal ci suñu ñetteelu jataay ci suñu programme bii nii nga xam ne ñu ngi ko tuddee xam sama àttey koor tey nag ñu ngi ñëw di wax ci beneen poñ bu bees bu am solo ci koor di lu julle di lu yitteel ab jullit di lu am solo tamit ngir ab jullit xam ko muy ban waxtu la lañu war a jàpp koor gi ak kañ lañ ko war a dog fi koor gi di tàmbalee ba fi mi eh, dogee ci bis bi dañuy dellu ci alquran subhaanahu wa taala mi ngi wax ci aaya uxilla lakum laylata siyaami rafathu ila nisaaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum wa afa ankum fala nabaashiruhunna wabtagu maa kataba allahu lakum wa kulu washrabuu xatta yatabayana lakum alxaytu labyadu min alxayti alaswadi min alfajr summa atimu siyaama ila leyl euh, dañuy gis benn imaam di boroom xam-xam bu mag muy al imaam ibnu kathir di kàngami lislaam muy wax mu ne aaya bii de ak yombal la ak woyafal la ci ab jullit ci koor li amoon mooy bi koor njëkkee euh, wàcc jullit ñi di ko taxawe bu ñu dogee ci waxtu wi ñu war a dog mayoon nañ leen ñi lekk ak naan ak lépp li nga xamee ne euh, tere woon nañ leen ko ci bëccëgu weeru koor waaye nag mu ngi yem ba fi ñuy jullee gee wala buñ nelawee rek loola dootul daganati ba guddi ga di ñëwaat suñu borom daal di wàccee aay bi woyefalal leen mu nekkoon am mbégte mu mbégte mu rëy ci jullit ñi ci ci ci woyofal googu kon aaya bi nekk ci suratul baqara wax nañu ban waxtu lañu war a jàpp koor wakulu washrabu xatta yatabayyana lakumul xaytul abyad ginnaaw ba nga xamee ne yéene am na jullit bi fanaanoo na yéene koor fa fajar ga di xare nga xam ne leeru suba gi mu muy jaxasoo ak lëndëmu guddi gi guddi gi di tàggoo suba gi di ñëw foofa noona nga xam ne boo doon xool du leer euh, suñu boroom misaale ko euh, wëñ du wëñ sax waaye mooy leeruk suba gi ak lëndëmu guddi gi bu ñuy dajee bii di tàggoo bii di ñëw li gën a leer mooy yenn saxaaba yi daanañ di xaar ba nga xamee ne li des ci diggante tax salaatu ak julli gi diggante boobu lu diggante buñ mën a jàngee juróom fukki aaya ci njàng mu dal mu teey foofa lañ daan xëddee doog a jàpp seenu koor mën nañ ko xayma tey ci lu jiitu salaatu gi ci fukki minit ak juróom kon foofu la euh, koor gi di euh, façon foofa lañ ko war a jàppee kon xëdd googu nga xam ne mooy màndargal jàpp koor gi dafa nekk lu am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tasaxaru na ngeen di fonk xëdd fa inna fi suxuuri baraka ndax xëdd kat barkeng ci ndax dana dimbale aji koor ji ba bëccëgu koor gi mën na cee bañ a sonn mën na cee bañ a loru bu baax a baax euh, am na nag ñoo xam ne nii xëdd fonkuñ ko wala ñenn ñi dañ koy teelal def lool loolu wuute na ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuute na ak njàngaleem xëdd nag waxuñ nit di jëfandikoo lu bare bare déedéet donte ndox guuxu ndox la donte doomu tàndarma la ak lu woyof woyof baax na ab jullit di ko def waaye di ko sësali nag ci fajar gi ñenn ñi ñi nga xamee ne dañuy teel a xëdd lool wala fanaanoog moom nelawaale ak moom loola wuute na ak njàngale yonent bi kon li gën daal mooy bu fekkee ne mën naa nekk mën naa nekk nit ki euh, bàyyi xëdd gi sësale ko ci waxtu fajar wi noonu ak lu mu mënti xëddee tamit baax na ndax ku teel a fanaan ku fanaanoo xëdd mën na ko jural yeneen i ay njuumte mën naa faat waxtu julli wala mu bañ koo defee ca jàkka ja te loolu bàkkaar bu rëy rëy la te ab jullit ci koor war naa góorgóorlu war naa farlu ci jaamu yàlla yi koor gi dafa ànd ak ay jaamu yàlla waxtu julli yi mu koy def ca waxtu ya di ko defee fañ ko soppee mooy jàkk ya di ko ànd ak mbooloo ma jullit bi bu fekkee ne jàpp na kooram euh, euh, ci aaya bi ñu waxoon dañuy delluwaat ci aaya bi suñu boroom ne summa atimmu siyaama ilal layl ngeen mottali koor ga nag ba guddi guddi gi nag foofa dañ koy déggee euh, euh, dañuy dellu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni daan ni daan doxalee ci weeru koor mooy laaj nañ ko guddi gi lan la mu ne bu fekkee ne jant bi fenkee ne fii bu sowee fii foofa waxtu dog jot na wala aji woor ji kon euh, dog na mooy waxtu dog bi kon ñëw na liñ gën a sopp nag ci dog mooy gaaw koo def yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn xadis bu wér ne laa yazaalu na laa yazaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitra nit ñi daal ñu ngi ci ak mbaax ñu ngi ci ak yiw fii ñu ngi gaaw a dog kon dog gaaw a dog sunna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bu nit ki nag li gën ci li muy dogee mooy tàndarma bu ko amul mën naa dogee ndox bu ko amul lépp lu fa jàppandi ci xeetu naan wala ci lekk mën na koo dogee waaye nag tam tàndarma daa nekk lu gën ndax yonent bi noonu la laa def euh, jëlee nañ ci euh, ci ay xadis yu wér ne yonent bi euh, kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabaat fa in lam takun rutabaatin fa tamaraatun fa in lam takun tamaratin xasa xasawaatin min ma kon daal loolu mooy li nga xam ne mooy li gën moom lañu ñu sopp waaye nag dog nag li gën mooy nga dogee lu oyof dog lu oyof dem teew julli gi ak mbooloo mi ci jàkka ja bu fekkee ne da ngaa nar a toog di dog di dog ba julli timis gi faat la ndax julli timis dafa xat ak xataay boobu bu fekkee ne dalaa faat kon loola nekkul lu gën li gën mooy boo dogee lu woyof ba dog koor gi nga fexe nag ba teewe julli gi ak mbooloo mi ca jàkka ja boo paree nag mën ngaa ñëw àggale sa ndogu ba waxtu wala sopp <clears throat> bokk na ci liñ sopp ci ndogu euh, nga ñaan fa ngay ndogoo ndax xadis bu wér nee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna lis inda fitrihi daawatan ma aji woor ji fa muy dogee foofa lu mu fa ñaan suñu boroom suñu boroom nangu ko foofa suñu boroom du nangu delloo mukk aji woor ji ak ñaanam bu ko defee booy dog mën nga wax allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart allahumma laka sumt wa ala rizqika boo dogee ba pare yonent bi daana wax ci waxtu woowu ne dahaba zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru incha allah bu ko defee day jaadu ci ab jullit mu góorgóorlu ba di roy yonent bi sallallahu alayhi wa anam gi mu daan wooree ba kooram gi nekk lu ñu nangu jëfam yépp yàlla nangu ko ah, ndax yàlla loolu la ñu sant ñi roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun yéen kat am ngeen ak roy bu rafet rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu waxtaan bi foofu jox dig daje ci beneen jotaay ci beneen émission ci waxtu wi ëllëg ak jàmm ñu ngi ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor nangul ñu suñuy taxawaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran.